ñoo ngi fii tey ci Pikini production seet si nit ku baax ku yàlla baaxal boroom xam-xam nitu diine ku ñëpp ràññeeku ci wàllu rasa Cheikh Lamine Diop maa ngi lay nuyu. bu baax di nuyu ak euh, seen staff bi yëpp. waaw man ne sama laaj bu njëkk. Mhm. maa ngi laaj ci wàllum seet. Mm. parce que gis nañu ci lasraar ñii mm. ñi ngi seetee ndox ñii mm. ñi ngi seete pétaw ñii mm. ñi ngi seete leneen ak leneen ñu bëggoon xam ci wàllu seet nan ka ci taxawee soxna bi waaw seet ci ndox am na seet ci pétaw am na seet ci yeneen xeet façon am na waaye man côté bi ma jàng <coughs> mooy seet ci bind mbaa tombo ndox xam naa xam naa ci waaye bokk ci yi may jëfandikoo euh, man li may gën a jëfandikoo mooy ramli wala téere boo xam ne dañ koo tabax ci ramli mm, loolu laay gën a jëfandikoo ci seet mm, te tamit dama ciy defar ay ay téere yu ñuy seetee ci ramli waaw dama koy defar seet moom mm, xam nañ ci lu yaatoo yaato yaatoo yaatoo yaatoo léegi Cheikh bi dañuy laaj diggante ramlu ak yeneen seet yi moo seen différence. Euh, différence bi mooy ramli damaa xam cosaanam ramli wax naa ko ci yeneen interviewer ramli yent yàlla Idrissa lii benn boroom xam-xam bu nekk tonis nettali ci ay téere yum bind ci ramli mooy Seydi Tuuqi moo bind man bon usuli ramli bind naa usulul usuli biyanal miram li bind naa téere bu ñuy wax nihayatul amal moo bind seerajatul hindisiya moo bind dalilul xayraan aba mahsurul fale falaki moo ko bind moo bind eh, nihayatul amal kooku wax na ne ramli yent yàlla idrissa la ko yàlla jox jibril jàngal ko ko ci yàlla du ko yónni caaw xeetam muy oote gëmuñ na yenente la yàlla yoni jibril jox ko xam-xami ramlu mu ñëw mu jàngal ko ko ba man ko mu ne ko damaa bëggoon nga seetal ma ana jibril fu mu nekk mu seet ci gisut ko mu seet ci ramlu bi ci kaw suuf ne ko mu ngi suuf mu ne ko fan la ne ci suuf mu seet ci gox buru ne ko burul yow daal xaw ma fu mu ne mu ne ko man maay jibril yàlla ma yoni pour ma jox la xam-xam bii pour ngay xam sa jafe-jafe man leen koo wax ndax ñu gëm ne yàllaa la ni mu nekk benn mojisa boo xam ne dana tax ñu gëm ne yàllaa yoon yónni loolu Seydi Tuuqi mi bind téere yii ma wax la moo ko nettali ci man bon usuli ramli waaw loolu mooy cosaani ramli am na beneen borom xam-xam bu ñu la wax satiixu eh, ci lu jiitu yenent bi daraan seet waaye moom boo ko fekkaan mu toog yaram wi amutoon yax daf daan lemu comme comme benn malaan sattihu moom boo ko fekkaan muy seet mu boo ñëwaan di ko laaj ci seet loo ko fekk mu téye rek ci loolu lay xool bu dee ndox ci loolu lay xool bu dee ci loolu lay xool bu dee fekk da ko fekk mu mu tëdd fu fu mu enu rek foofu lay xool ci loolu lay xool wax la sa soxla te dafay wét sattihu daan na seete noonu kon mën ngaa wax ne yeneen xeet seet yi nga xam ne sosu na eh, mën naa jógee ci sattihu moomu waaw ndax daan na seetee façon seet yu bare baree baree bare waaye li moom lii mooy cosaanam waaw ci ab yenent la jóge noonu la ko Seydi Tooxi nettalee. macha allah waaw. kon daal a mm. kenn da koy xool ba noppi. Mm. doo ko xam li ndax lasaraar lañ wax lasaraar baat bi mu ngi jógee ci sirru. sirru mooy secret ñu wax ko lasaraar mooy nag ay mbóot mm-hmm. pluriel la ay mbóot. lu luñ bootal lu bare xaatima ngi ci biiram ren ak pasak sungufa lépp a ngi ci biir la lasaraar dégg nga euh, pour nga xam nag nit kii nii lii mooy soxlaam foog nga seet soxlaam bi mën naa koo faj wala mënuma koo faj foog nga seet waaw dama am yóbbante waaw ci waa bitim réew waaw ñu ci bëri dañu ne dañu contrat hmm. fi ñuy liggéey waaw waaye dañoo dem bëgg CDI maanaam embauchement waaw. ñoo ku amul waaw léegi ku amul liggéey bugg liggéey am nañ xam-xam yuñ koy jox yàlla may ko chance mu am liggéey ku am liggéey amul contrat am nañ xam-xam yuñ koy jox mu saxal ko fam ne su fekkee foofu lu bëgg contrat bu am fa contrat CD yi samp ko fa waaw loolu mën nañ ko bu baax a baax a baax waaw xam nañ ko ci xam-xami la saraare waaw wàllum xam ne su ñëwee euh, dama koy xool su ma ci manee dara ne la mën naa ci dara su ma ci mënul dara ne la mënuma ci dara mais lu gën a bëri euh, xool rek xool ba pare rek waaye am nañ nag ci xam-xam loo xam ne suñ xamee ne yow mën nga am kayit te mën nañ ci dara buñ la defalee nga am kayit ñaare ñi nga xam ni hmm. tamit dañoo am jafe-jafe seen àdduna hmm. ñu ne luñ leen def la hmm. ñu ne luñ luñ deful la wàllu liggéey maanaam li nit bu ñu liggéey jabar la jabar ko liggey japp wa ko liggey japp nako wa manam di bëggoon xam Cheikh Lamine nan nga ci taxawé daal bu dé liggey la bu ñëwé fi mu ma sha Allah wa ak lu liggey démé bu dé liggey rek la bu ñëwé mu dëñ bu dé walu korte la bu dé korte la amna na yu ma mëna fajj amna yu ma mënul fajj wa ma sha Allah di nag jàkkat yee ma ko yóbbante mu ñëw ma ñëw fi ba dem du ma la ko laaj walu mbay lañ jaay nit na ma nee bu doon jaay or sax lu nit ñëpp bëgg. Hmm. su wàññi woon bi du jar. ma ne ko Bayre Ndiaye xam naa ci lu wér a wér moom jëm jaaykatu or la jaaykatu lu ñuy lekk la jaaykatu yére la jaaykatu xorom la jaaykatu dal la ndey jaay rek nga bëgg muy jar boo ñëwee dina jar. incha allah bitim réew fu mën a doon fu mën a doon. waaw te it yaay soo bëggee lu ñuy takk nga ne man lu ñuy takk laa bëgg soo bëggee ndox la doon nga ne man ndox laa bëgg mu doon soo bëggee mu nekk leneen am na bayra njaay boo xam ne ci suuf laa koy def mm-hmm. loo ko wis jar. na ko laal rek. Ah, bu koy laal mu jar. beneen bi mooy loolu am nañ ci waaw loolu mën nañ ko bu baax ku bëgg ku kilifa maanaam ku bëgg mbooloo. Mm-hmm. waaw ba entreprise bu bëgg a taxaw ma nañ ko samp ba mu dëgër nit ku bëgg a samp ca lam ne nga xam ne kenn du ko ci mën a daaneel waxuma kenn du ko yàqal de waaye kenn du ko daaneel waaw kenn du ko yàqal xam nga wax loo comme nit ñi may dëgg taam xel samp nit ba du daanu bokkut ak du am jafe-jafe man nga am jafe-jafe waaye doo daanu mukk jafe-jafe yi boo ko amee nag dañ koy régler waaw loolu leneen la mais samp ko ba mu dëgër ba nga xam ne man damay jaay damaa bëggu ñëpp xam ne commerçant la ci tel marché loolu man nañ ko bu baax a baax. ñi nga xam ne dañ leen dëddal. Hmm. nga xam ni dañ doon ànd ci jàmm nekk ci jàmm muy jëkkër ak jabar papa ak yaay. Hmm. yaay ak doom lu nekk ñu nekkoon ci jàmm xëy suba rek ñu dëddale leen. Hmm. mel ni bu ñu gisee mel ni xaj ak muus kuñ tàggale. loolu nag Cheikh Lamine bu ñëwee dañ koy xool léeg-léeg ñu wax la dëdd la fekk du la waaye bu fekkee dëdd la am na yu mu mën a dindi yu wër su fekk lu mu mën a dindi la moom kere lay dañ am na yoo xam ne nag noonu dafa bëri façon comme corde am na yoo xam ne jafee dindi la doo ñemee wax nit ki ne ko mën naa koo dindi dangay ese yooyu itam dañ la wax ne ñu dañ la koy wax rek dëgg buñ ci mënu dara ne la mën nañ mënuñ ci dara buñ ci mënee dara keroog mu deñ waaye lu ëpp nag mën naa la wax quatre pour cent ñu dindi ko dañ koy dindi waaw. léegi wàllu rab nag rab. ku rab dugg ah, waaw aw aw ma ay jinne nag waaye ku rab dugg mu génne ko. Mm-hmm, waaw ah, waaye nag aw ma jinne yu may àndal. nit ñi sonn nañ de. waaw ah, li di wax am am nañu am jinne waaye man aw may jinne nag waaye ku rab jàpp boo ñëwee ma dindi ko. ñi nga xam ni. Hmm. Cheikh Lamine dañoo nekk kaso. ñi nga xam ne loo xam ne lu ko gën a gàtt euh, sëñ bi. Uh-huh. am na yoo xam ne buñ la ko defalee doo dugg kaso mukk. macha allah doo dugg ah, hmm? ak loo mënti ne. loo mënti loo mën a ne doo dugg kaso. macha mukk kaso moom da koy dégg ni way ceeb rek. Hmm? déedéet. ñi nga xam ne nag ñi ngi kaso bëgg a génn nag. waaw ñooñu tam man am nañ ci xam-xam lu leen mën a génnee incha allah. Hmm. waaw. yooyu tamit seet rek waaw nit dana nekk ci lëndam goo xam ne la ko ci dugal du ko ci génnee waaye buñ xoolee ba mu xam ne mën nañ laa génnee ne la mën nañ laa génnee sa dërëm buñ ko jëlee da génn waaw macha loolu moom lu wér la buñ ko mënul wax ji du bare mënuñ ko rek loolu am na waaw su suñ baas daal mooy seet dañuy xam liñ man ak liñ manul luñ man ñu engagé ko luñ mënut duñ ci dugg loolu mooy wax ji ñi nga xam ni sonal na askan wi lu bare bare bare mhm. ñu bëri ñu ngi koy sooxaale mhm. doon feebar ci ñoom mhm. te amuñu ko lañ ko fajal si nax nañ leen lekk nañ seen alal lu na daj lañ ko ci ah, man ci sëriñ si laa bokk waaye nag du ma naxe du ma naxaate sëriñ si soi-disant sëriñ waaw tëlee ay façon la bu dee feebar la nañ garab yuy faj tëlee ci lu gaaw nag du yàgg sax bu dee kum dal la te ndànk-ndànk day dem di ñëw am na garab yu ñu koy jox mu arrêté. bu dee kuñ takk xala la. moom dama koy dindi bu ñëwee fii buy génn du génnaale xala. ah déedéet ci taxawaay laa koy dindi. day ma dindi ko mu dem. allahu waaw. Ah, ci taxawaay laa koy dindi waaw. taxaw nga mu du ànd ak moom. buy génn. macha allah mbooloo nag Cheikh ku bëgg mbooloo. mbooloo nag dafa am ay façon waaye su dee sëriñ la. bëgg mbooloo. Mhm. bokkut ak commerçant bëgg mbooloo bokkut ak politicien bëgg mbooloo. Mhm. am na différence am mhm. bu mu ci mën a doon nag. mën nañ laa jox bayre yoo xam ne. fokk nit ñi topp la. macha allah waaw. foo jaar mi ñu topp la. macha allah bayra bu ànd ak kaaraange. Mm. bayra à part la kaaraange après dañ cay wax. macha waaw waaw. bayra moom lu gën a bëri. Mm-hmm. du duy ànd ak kaaraange bayra lay doon rek. macha lu gën a bëri laa wax. Mm-hmm. ci li ma xam. Mm-hmm. waaye bu ñu la defalee bayra defal la kaaraange ba nga xam ne bayra bi du la lor. waaw euh, jigéen bu bëgg borom kër am nañ. luñ koy defal pour maam borom kër incha allah nga bëgg benn jigéen gars yu bari jàpp ci ne doo ci jot wala di ko xaccoo yow boo ñëwee fii ñëpp ñàkk maa la wax loolu boo ñëwee fii ñëpp ñàkk. waaw. kon daal bu fukki góor taxoon ci benn jigéen yow daal ki nga faral ma moo koy moo koy moom. jaaru dafa bari léegi ba nga xam ne wax ci sax dafa doy moo tax. nit bu ñëwé fi ne jaaru la bëgg ko wax luy jaaru ak lu jaaru di def ak fu jaaru mëna yam dañ ci wax lu ëpp waaye xamna ci yu wër yo xamné fam baru am suma la ko waxé lool ngay gis bari lu may defar jaaru ma sha Allah jigen bu taxaw nak jigen bu taxaw waaw dama koy faj ku am dom mm-hmm. dama koy fajj sa dépend bu fekke febar la am nañ fi garab yu koy faj bu fekkee rab la am nañ garab yu koy faj bu fekkee gàllankoor la yeneen tamit ak niñ xam ci seet ci xam-xamu seet lañuy xam kii lii ma ko gàllankoor buñ ko mënee faj buñ ne la mën nañ koo faj rek kooku na dem tëdd nelaw day am doom. yow sa faj ci wàllum euh, euh, alxuraan la sunguf reen wala. yëpp alxuraan sunguf reen damay faj ci alxuraan di faj ci garab yi.